Eh, sëñ sëñ maam Samba boo déggee yile kàddu nga xam ne ab jëwrin moo ko moo ko yëkkati soññ ñi nga xamante ni nii ñoo di ñoo ñoo di mbooloo mi eh, day mel ne mbir mi yegg na foo xamante ni kawe na. jërëjëf sëñ Maodo Mamoun. Mm-hmm. waaw moom day euh, kàddu yi dafa kawe dafa kawe lool. Mm-hmm. ndax yaakaar naa ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay ndaw nekk ci daara ji. Mm-hmm. bu ñu déggee kàddu yu mel nii. suñu xel dafay gën a dal ndax mbooloo mu ci nekk boo ci boo ci tàbbee gis ni nga xam ne ñoo la ci jiitoon doxin wa ñuy dox saa su ne muy gën a yokk amuñ ci benn changement kon yow boo dugg see rek li nga war def mooy gën a xool seen tànk fa mu tegoon nga jëm ko faa te xam ne ñoom fan tegoon dëgg képp ci lañ nekk ndax lépp lu dëgg rek yàgg kon ànd bii ñu ànd nii ñoom jiituñu fi ay at ñu nekk ci liggéey ba am ci ak njaboot ñoom ne maanaam du dëgg kon tas na bu yàgg. Mm. kon li ñu war def mooy ñun du tànk yi xam ñoo nekk ci daara ñun ñëpp. Mm. ñu takkuwaat ànd euh, jaxasoowaat ak liggéey bi. Mm. xam ne ñun mënuñoo am lenn lu gën a kawe liggéey bi. ndax Serigne Touba di ko liggéeyal. loolu am yaakaar naa kenn mënut a am lu gën. kon suñu doon suñu doon suñu doon suñu doon def leneen lu dul moom it duñ ay gor. ndax lépp loo xam ne nii waroon ko ak ñun. defal nañu ko ba noppi. ndax koo xam ne nii ba muy metti tubaab bi yóbbu mu nekk loo absence boo xam ni mat na presque huit ans. Mm-hmm. nekk ci loxoy noonu. Mm-hmm. gisul mbokk gisul doom gisul waajur gisul dara. Mm-hmm. kooku noonu lam na lam na defal ca naajoo boo nekkee ci kër waroon koo mën a fay kon. kon yaakaar naa ñu ngi woon ci tomb bu am solo suñu amoon doon ko doon ko wax sànq. muy wax ci ci ci ci wàllu mbëggeel gi ba léegi. ndax sëriñ bi ku ne xam ne ne bëgg nga xam ne maanaam bëggoon na ko Muhammad sallallahu alayhi wa yóbbu woon na ko ci ne moom moom nekk moo nekk koo xam ne ni moom moo nekk am moom moo nekk léppam maanaam ne dikru nabiyil mustafa bil madxi aw bi salaati qismati wa ribxi maanaam bëgg gi ma ko bëgg wala tudd gi ma koy tudd moom moo nekk moom moo nekk sama sama sama sa sama sama cër man ma maanaam loolu mooy sama cër kon ñun tamit amuñ beneen cër bu gën a kawe bëgg Serigne Touba te loolu mu waxoon ne muhammadin dikruhu euh, unsi yow ma faraxati maanaam bëgg gi ma ko bëgg moom moo nekk moom moo nekk sama sama mbég te loolu noonu ngëneel yàlla loo xam moo koy gënal ko neex waaye ay pexe du ko may kenn dalika mhm. fadlullahi yutihi liman yashaau min ibadihi dalika lam ajidhu bi taxayuli bal niltuhu bi maxsin taxsiisin ali mhm. bi max di taxsiisin ali mhm. maanaam fi ma ko amee mooy dama ko am ci coono bu métti waaye amu ko ci ay pexe nekkul loo xam damaa tëdd nelaw rek daal koy xëy daal koy am ok amu ko ci noflaay kon loolu moo ko yóbbu woon ci mu nekkoon koo xam ne itam amoon nag métti lool ci li mu ñàkkoon dem ziar Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax ku ne xam ne sëriñ bi mësul mhm. dem Màkka ci zahir mhm. te loolu bind na ko ci ay waxam yu baree baree bari mhm. wa huwa alladi aqa jismi an ziyaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru maanaam mooy ki nga xam ne dañ maa gàllankoor ci ma dem ziyaare ji ko waaye de sama làmmiñ ak sama xol ñoom ziyaare ji woon nañ ko te maa ngi jaakaar itam ci ziyaar gi ma koy ziyaare mu nekk loo xam ne ak njub lay doon ci man arju bi rahmatihi lmuhdaati sayidina zawri madinatahu daara rayaxiini waxaat daane daarun mata maa yazruha zahirun abadan lihudan yasaad hiya daaru daarul xaqi wa diini maanaam kër la goo xam ne ni képp koo xam ne dafa ko fa ziyaara fa ngir ak jub képp ak texe lay doon lay doon ci yow mu demaat bay wax ne mel na kuy mébét di ñaan yàlla man aka neexoon sax ma ziyaara ji ko yaa laytani qad zurtuhu bi jasadi ka xaatiri xatta yazilu manzili kon kooku xam nga ne fa mu tolloon ci moom bëgg gi mu ko bëggoon kon suñu toogee sax ñun di am lenn loo xam war nañ ko def lu roñ ci moom kon ñun duñu duñu ay gor te itam bi mu demee bay wax ak waa madinatu mun a war waa madina foofu noonu ci dëkk ba nga xam ne ñoom fa lañ dëkk mm-hmm. wax di leen xamal ne yéen na xam ne maam texe ngeen ci leen taxaloo ma dëkk ngeen dëkk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne maanaam seen lépp dafa wër Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. moo tax ma ne leen fastum laa ziltum dahra fi safin wa tawsiatin yakfikum allahu fi daarayni man anada hmm. fastum bi kawn ibni abdillahi jaarakumu wa kawnakum xawlahu faltaxmadu samada hmm. di leen digal ñu sant yàlla ci dëkk nga xam ne maanaam dëkkal na ko Muhammad sallallahu euh, sax di ci wax Mm. ci solo si nga xam ne maanaam bari na ko ak mm. mbëggeel gi nga xam ne maanaam sëriñ bi bëggoon na ko maam salaa salaam ak cofeel gi mu mm. loo xam ne du woon tricher ndax lu dul dëgg du yàgg te boo gisee ay waxam wala nga gis ay jëfam loo xam ne ci léppam bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko ci la ko ci la ko amee woon te loolu noonu moo moo moo ko yóbbu woon mu wax ne yazuruka minni haythu ma kuntu yaa muhyi maanaam fu ma mën di nekk rek maa ngi lay ziyaar sama xol ak sama làmmiñ kon kooku maanaam ñàkk gi nga ko ñàkk ziyaara maanaam teewut fu mu tolloon. ci mbindam ak ci léppam. Hmm. ba tax mu demoon sax ba mel ne koo xam ne day jéggul yàlla ci loolu mu ko ñàkk a def. Hmm. yaa naa ba dama ca raaya ma nga fa wax naan xafaaru. Hmm. lighfir dunubi waf kan kabali. bi man alayya li tarki zawrahu aaru kon kooku ku ne xam na ne ñàkk gi mu ñàkkoon dem ziyaara ji ko. metti woon na ko lool mm. amoon na ci naqaru xol lool waaye itam bëgg gi mu ko bëggoon yóbbu woon na ko mu tagg ko ci taggin yoo xam ne xëy na tey jii mën ngaa dégg bayit yu baree baree bare fekkente ne amoo settantal doo mm-hmm. gis mu tudd ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam doo mm-hmm. gis mu tudd ci aw turam mm-hmm. waaye timati moom lay junj loolu mooy raay ba tey bi jaahi man xaysuma saada tuqaarabahu shamsun tuqaaribuha kashahwi aqmaaru maanaam ki nga xam ne maanaam saa yoo xamee ne nit ñi dañ koo dañ koo jege ñi sangi baax dañ koo jege day mel ne Euh, ci ci ci ab jant boo xam ne dafa nekk ci ci ci niir wi mm. te loolu moom salaa salaam mm. waxaada atallu maa un wala kal wabli mun sajiman mm. wala tujaari nada bil maa yi am taaru maanaam ndoxum ndoxum ndoxum masay bandañ xam naa loolu loolu wolof yi ak waa àll bi dañ ko xam masay bandañ mooy ñebbi ñebel yooyu bu ñebbi ñebel ab taw taw wis nee na loolu ndox la ndox la waaye nag melul ne waame buy sotti wala kaloob li mun sañu ban maanaam melul ne waame mooy taw bare bare bu sotteeku ànd ak doole mm-hmm. waaye neen yëmuñu dana walaa tujaari nadaa bil maay am xaaru waaye rek na nga xam ne ndoxum ndoxum ndoxum kii tam euh, lay du jë du ja du rawante mukk ndoxum taw kon ay junj la yoo xam ne sëriñ bi mu ngi ko doon junj ci junj ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp cofeel gi rek waxaat daan ne lil qasbi tuulun la daa aynin lahu nazarat lakin ida xawlahu lam tanbit ashjaaru maanaam bant gudd na lool bët bi koy gis mën naa mën nga xam ne lii ab bant la gudd na lool waaye saa yu garab taxawee guddaay bant du du daan yakunu yakunu lil biir biiri maa un taab mashrabahu lakinnahu min xarijil bahri aqtaaru maanaam teen ndox ma ci nekk ndox la mu laab lool te itam ndox mu teey la ci man koo naan waaye nag saa yu géej taxawee rek ne ndox moom ndoxum teel ma ak toq lay doon loolu yëpp mu ci ju junj Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne maanaam tey jii ku am lu seetlu dëgg dëgg dëgg mën ngaa bañ a xam ne kii moom lay waxal waaye nag fa mu ko fa mu ko daanee la mooy tax nga xam ne kii moom lay waxal ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جارو maanaam kooku noonu mooy kan mooy ki nga xam ne maanaam mooy wéeruwaay bi nga xam ne maa ngi yaakaar ci moom mucc àdduna ak alaaxira daan ak a neexoon sax ma dëkkaaleeg moom. Mm-hmm. ak a neexoon ma dëkkaaleeg moom. Mm-hmm. kon kooku yaakaar naa sëñ Omar euh, mbëggeel googu noonu. ñun war nañ cee jël leçon. Mm-hmm. en tant ay taalibam yaakaar ko sopp ko lool. jël ci jafe jël ci jël ci leçon ci ci mbëggal googu mu bëggoon moom salaa salaam te itam bëgg ko te yàlla képp tax nag mm. bëgg ko ngir lim nekkoon ab ab jullit comme ñun mm. waaye itam du nekkoon koo xam ne ni ab ab jàngalkat la woon ci ñun nekk suñu mm. maître di ñu gind ci lépp wax mu wax ñu dégg mu jëf ñu gis mu bind ba fi ci yaakaar naa yooyu yëpp nag buñ ko toppee topp mbindam comme na mu ko jàngalee kon yaakaar naa ñun kenn du mës a réer ci ñun ñu ngi lay sant bu baax sëñ sëñ am Samba yow itam eh, ci leeral yu am solo yi nga xamante ni nii indi nga ko eh, ci fàttali ñuy waxtaanee ba di bëgg eh, ci plateau tey bile